salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV Babacar maa ngi lay ziar. maa ngi làmb daal di xëy ak ñun ci xëtamu njëkk mais balaa boobu ñu daal di dem daal di dikk siwaat ci plateau bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 29 juillet dañu ñëw ak ñi ci suñu làmb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëta mu njëkk moom lam ca xëy fesalati maanaam li olof di wax lu def waxu lu ay di njàmbat mel ne ki fan yi moom réew mi wala làmb ji moom li ci nekk mooy coowal la nga xam ne mooy combat yi nga xam ne dañ koo reporté te ka ko def du kenn ku fël du kenn ku dul gouverneur bi nga xam ne nii moom mooy gouverneur de Dakar cooli nag mu ngi ne gadda fi mu nekk nii Papa Sow moom nee na mbir mi daal fi mu nekk nii ba ko déggee wala ba mu yegsee ci moom daa mel ne asamaan si daal moo fàqe ko ca kaw di daanu ci kawam parce que nag nee na mbir yi dafa metti ba yegg ci lool lool lool moom Papa Sow nee na tamit boo bëggee dégg-dégg autorités yi Papa Sow nee na leen daal li am ba des moom lii moom échec la ci yéen autorités yi nga xam ne yéen nu jiite te yore réew mi Papa Sow daal loolu yemu ca ne na tamit état bi la mu war def mooy de dédommagé leen maanaam daal ndàmp leen parce que nag mbir yi metti na ne na moom nag Papa moom ne na dund na loo xam ne lii moom maanaam metti na lool lool yemu ca de ndax nag ne na ay yoon a ngi lii di ko dal limb na ay combat yoo xam ne dal na ko ca digganteem ak Paul Maurice digganteem ak nga xam ne moo di Zos Lac de Guiers numéro 2 Ama Baldé ba ci Siteu nee na boo bëggee dëgg-dëgg daal maanaam mbir yi moom li mu koy arrivé bari na waaye na benn nag daa bokkul ak bi bii moom mettit ga papa wax na ca ba mu maanaam daal na mu mettee ci moom lool lool lool loolu mooy li nga xam ne ni moom moo di waxi papa Sow Moussa Ndiaye ma nga xam ne nag moom moom moo jiite école Balla Gaye xëy na tamit di wax ca mbir yooya daa mel ni moom waxi papa Sow ja daal nee na maanaam dafa mel ni koy dëggal Moussa Ndiaye ne na li am ba des daal maanaam ñi nga xam ne nii daal ñoom ñooy mbër yi nga xam ne mbir mi daf leen a laal daal la ñu war a def daal mooy indemniser leen maanaam daal dimbi leen wala boog ndàmp leen ndax daa jàpp ne mbir ya metti na ba yegg ca lool keneen koo xam ne ni moom jàpp na ne mbir ya wala boog li am nekku fi gan muy Moussa Ñëng ne na boo bëggee dégg dëgg daal maanaam diggante Mbaye Guèye ak Boy Bambara dem nañ ba war koo bëre midi daal la ñu reporté combat ba ca bis la nga xam ne ni ca la ñu na waroon a bëree ñëw na ci tamit diggante Bombardier ak ba ak ak Balla Gaye numéro 2 ne ñaari mbëri soo déggee boo bëggee dégg dëgg Moussa Ñëng lii ñu def maanaam combat yi nga xam ne ni reporté nañ ko nee na arrangé wu ci ñoom ñaar kenn waaye tamit dina tax kenn ci ñoom ñaar koo xam ne ni daal pare woo kon ma di nga gën a defaru waajal sa bopp am na koo xam ne tamit mu ngay xëy tey di indi ay leeral ci cas de force majeure ay wàllum dédommagement yëglikaay bi maanaam dalal na ko mu di ab spécialiste ci mbir moomu mu nga xëy daal di ca wax gouverneur ba moom gis nañ ko tamit ak aw photo mu nga xam ne ñu ngi ko fésal ci yëglikaay ba mu nga taxaw tiim ay kayitam daal di wax ne daal li am ba des daal nee na boo bëggee dégg dëgg daal maanaam bis bu condition yi matee daal wala boog bis suñu demee ba nii lu nekk nu génn ci su keroogee ñu xool nan la ñuy def wala boog mbir ya na muy amee Max Mbargane moom li am ba des daal nee na boo bëggee dëgg-dëgg moom fi mu nekk nii ñoom la ñuy xaar lenn la ku leen ndàmp daal dédommagement daal la ñuy xaar ndax mbir ya metti na ba yegg ca lool waa kër Balla gay ak waa kër Bombardier tamit xëy nañ ci yëglikaay bii di sunu làmb daal di fa wax Basiiru Gaye ñu gën koo xam ci père Bas itam wax na de maanaam xëy na wax ca mbir ak na mu méttee ak loo xam ne tamit bu mënta nekk itam dañuy xam ne daal mënta nekk tafaa buuju wala boog tafaa kebe ñu naan ko tafaa buuju ñu naan ko tafaa buuju moom di ko jege Balla gay numéro 2 moom tafaa buuju tamit xëy na wax ca mbir ya ne daal a xew combat bi yàgg yàgg moom incha allahu rabbi tafaane na dina am te itam bés bu amee moom ñoom la ñuy am du lenn lu du ndam Père Diaw wala boog Aline Diaw ñu gën koo xam ci Père Diaw moom tamit boog kii ñi nga xam ne nii daal ñu jege Balla Gaye da la mu xamle daal nee na état bi li mu waroon def daal fexe fexe fexe ba sauver lamb ji rawatina nag combat boobu ñeneen ñoo xam ne tamit ñoom ak ñoom ñoo seq bés ba muy waa kër Bombardier mbay booy moom la mu xëy xamle moom nag moom mooy bombar Bombardier mbay Boy daal nee na fépp foo xam ne nii moom ñu ngi fay waxee nee na balañ faa wax lenn wala ñu ko fay kaas nanu wax wér yaram ba pare la mu gis daal nee na la santé avant tout mbay booy loolu la gis musa Loss tamit di bras droit wala boog di ku jege bombardier nee na daal li am ba des daal nee na daal fi mu nekk nii moom a ah loo ci mën a dégg daal defaru rek tey itam daal di xaar rek parce que nag jàpp nga ne dara ñàkkagun ko wala dara demagul Pape Sylla tamit président école président écrit ba nga xam ne fa la bombardier na nekk tamit xëy na daal di wax ci tam mbir ya ak li nga xam ne nii maanaam moo leen ñëw na di ca leeral lu yaatu les arènes bu nu fa demee tamit mbir yooya daa mel ni nag renvoya mbër ya nga xam ne ni daal ñoo ko dund mbër ya yëglikaay bi xëy na fesal leen moo xam Bombardier la Papa Sow rëg-rëg ki nga xam ne moo di guy gi wala Siteu Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi xëy na tey dalal leen ñoom itam daal ku ne wax nga la nga xalaat Papa Sow moom nee na boo bëggee dégg-dëgg daal ki nga xam ne nii daal moom moo di président Macky Sall la Papa Sow nee ko ci les arènes xoolaatal ñi la wër ñi lay xelal ak di la xalaatal xool leen bu baax a baax a baax yan genre nit lañu ndax nekkuñu ñoo xam ne daal dañ lay dugal ci guta loolu mooy waxi ka nga xam ne moo di Papa Sow yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu adversaire ba nga xam ne nii nag moom moom moo di la mu xam ne daal ne na mbir mi moom du ko jiñ kenn Siteu ne na du kenn ku dul CNC ne na ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk daal yore làmb ji Siteu ne na responsabilité bi ñoom la rëg-rëg moom la mu gis ne na daal li am ba des moom maanaam wér yaram daal moo ëpp importance lu mu mën a doon rëg-rëg moom gi maanaam gis-gis boobu la gis ka nga xam ne nii beneen gis-gis la am moom moo di guy gi guy gi nag moom ña mu xëy xamal wala boog ña mu xëy di waxal nee na ñi nga xam ne nii daal ñoo fi nekk ñu leen di wooye ay ténor mbër yu mag nee na tamit dañoo war di mën a boog war a bàyyi di wax ngir seen intérêt bopp kese nee na bu ñuy wax ñoom dañoo war di wax ngir intérêt yi làmb waaye moom la mu gis daal nee na ñoom ñoo ñuy wooyee mbër yu mag nee na bu ñuy wax daal seen bopp kese kese moo leen ñor bu dul seen bopp duñu waxal keneen loolu loolu mooy gis-gisu ka nga xam ne nii moom moo di nga xam ne moo guy gi ma nekk école de lutte Mor Fadam Bira Sène moom ma jiite làmba ja mu nga xëy di wax ci mbir yooyu ci les arènes nee na daal boo bëggee dégg dëgg moom bilan bi ñu am nee na daal bilan la boo xam ne daal boo boo xam ne daal mbégte am na ci maanaam bu satisfaisant la loolu mooy waxi ka nga xam ne moo di Bira Sène nee na tamit décision nga xam ne moo am maanaam ñu aj làmb ji nee na décision la boo xam ne bu saas la loo xam ne laal xel nangu na ko loolu mooy moomu nga xam ne am na keneen koo xam ne ni tamit xëy na di wax mooy ki nga xam ne ni moo di Ambroise Sarr ba mu waxee démb ci Bombardier tey tamit ca Balla Gaye numéro 2 xëy ak ay erreur yoo xam ne dal na ko ci ay combat muy ñetti erreur yëglikaay bi ñëw na tey dalal Ambroise Sarr mu xëy di ca wax moo xam digganteem ak Eumeu Sène la ñaari yoon yi ñu bëre ba ci digganteem ak bombar ji yëglikaay ba mu xëy tey di ko dal rëg-rëg moom yëglikaay bi mu ngi ñuy xam ne daal maanaam ak ñibbiseem Sénégal cinq heures matin loolu la nga xam moom moo di les arènes xëy tey di nu xamal lu mel ni ki noonu yëglekaay bi nga xam ne nii moom moo di les arènes tamit bu nu génnee ci wàllum làmb ji nag léegi ci jeux olympiques ya la ñuy ñëw Adama Diatta depuis le vingt cinq juillet mu nga fa nga xam ne moo di Tokyo di waajal yëglikaay bi nag xëy na ñu xamal ci ay xibaar daal nee na le 6 août bii nu jëm daal maanaam juróom-benni fan ci weeru août bii nu jëm ca la Adama jaata fas yéene wàcc nag ca tapi ba wan nañ ñu ko ci aw photo ñu koy ñaanal moom tamit ndam ca la nga xam ne nii moom la nekk ca. Tokyo mel ni kon daal loolu moo fi dikkoon ci yëglikaay yi waaye man fa may delluwaat mooy waxi guy gi loo ci mën a dégg daal la mu wax jar naa bàyyim xel ndax nag mbër yu mag ya ca kaw di ay VIP nañu sóor ne mbër yu ndaw yi ci suuf itam ci làmb ji lañ bokk te olof a kay wax maam gàtt na waaye ci jur gi la bokk booy wax wala ngay plaide ak foo ko mën di defee del sóoraal ña nga xam ne nii ñeen ñépp yéen a bokk milieu bi te itam boo bëggee dégg dëgg boo demoon tey Parcelles Assainies mbër ma fa gën a ndaw la ne ca xel ma bopp ba mooy daa bëgg a nekk Modou Lo ëllëg ka nekk Fass Gris Bordeaux lay reefe ka ca Pikine Eumeu Sène Boy Niang wala Ama Baldé ka ca Bawal Tafatin ka ca Géejawaay Balla Gaye de wala Lac de Guiers de mbaa guy gi ka ca Caaroy Rëg-Rëg ak ñu mel ni ki ñoom ka ca jàmm gën tamit c'est tax kon boo bëggee dégg dëgg daal la guy gi wax jar naa bàyyim xel plédé bi moom daa war yaatu ba ci suufa suufa suufa suuf Babacar gannaaw ba ñu seetaanee revue daal di sunu làmb daal di ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkk ay kàddu Papa Sow la ñuy daal di imal euh, Papa sur le report de son combat contre Siteu comme si le ciel tombé me tombait waaw balaay loolu dañuy nuyu ñuy suivre ah. parce que tamit. bon encore une fois ñu ngi leen di béggee mhm. di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom mhm. euh, képp ko xam ne nekk maanaam nekk nga ci arena bi di ñu suivre ci Equivox TV rek mhm. ñu ngi lay ñaanal jàmm wala ngay suivre sidéa bi di la ko ñaanal di ko sàkku si yow aussitôt tamit di wax lu nga xam ne nii bëri ki dem parce que dama fi toogoon yàlla dogal sama goro parce que ma naan suma goro la xale la mais suma goro la parce que sama rakk soxna la dafa réeroon bëri ki démb ñu déclaré ma déclaré ko ma maanaam ma waxoon ko fii ci sidéa bi vidéo yi tasoon nag ci àddina bi yàlla dogal na xale bi feeñ na macha allah ci benn dongo la woon bu nekkoon fële ci daaraay Cissé ci Touba mooy daara jooju dongo yu mag yi dajji woon mhm. ñu doon ko wax Baye Ndongo Ndiaye mhm. feeñ na kon ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne tamit tas nañ vidéo yi wala ñu jàppoon ci seet bi mhm. booy juróom daal di Assane Ndiaye mu ngi bëggee ñëpp ñi nga xam ne daal jàpp na ne jàppale nañ ko ci mbir moom ba xale bi feeñ kon loolu moom tamit dañ ko doon kii rek balaa ñuy sori daal incha allah rabbi mm-hmm. Babacar loolu rafet na mm-hmm. waaye sunu làmb ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkkam ki nga xamante ni moo di Papa Sow la ñuy fësal ay mm-hmm. c'est comme si le ciel tombait me tombait dessus waaw maanaam dafa mel asamaan si dafa doon wàcc ci kawam waaw loolu soo ko déggee ça veut dire kon moom annulation combat ak Siteu vraiment dafa metti dafa metti effectivement dafa euh, dama naan euh, sa euh, làmb ji am na ci mbër yu mbër yëpp la seen kaa metti ah mais dafa am ñu gën a metti le mm-hmm. mën naa limbal ku mel ni Modou Lo ak Ama Baldé mm-hmm. mbokku combat bu mu taxawee tey mm-hmm. dañuy bi sunu ah? Babacar jeudi 29 juillet sunu làmb daal di ñëw ak ñun ci xatam bu njëkkam Papa Sow mi nga xamante ni gannaaw ba mu déggee ni reporté nañ combat bi nee na moom c'est comme le ciel me tombait dessus. waaw parce que bon boo boo bëggee dëgg-dëgg Abdou loolu metti na trop. Mhm. metti na lool parce que tamit am na loo xam ne bu dalee nit nit xol la yore ah. Mhm. di yëg ma bànneex di yëg naqar. Mhm. am na loo xam ne su la arrivé rek il fallait que rek mu am lu mu def ci yow. dëgg la bu na laa wax de. Euh, nit nit nit rek mën a doon. Mhm. ça veut dire que mooy combat bi dafa yàgg. Mhm. dafa métti te ay yoon a ngi saa yi ñu ko waree bëri bon ñu dem ba dernier jour yi combat ba doon ñu annulé ko ndax lan à cause de coronavirus. Mhm. coronavirus nag feebar la. mais bon dafay nekk lu nga xam ne pour man. ay alternative la ñu waroon a wut. Mhm. la état du Sénégal waroon a wut. Mhm. ñu bëre ñu bëre mooy yoon mhm. alternative yi nag man dama ci génn huis clos total. huis clos total moom man du ma ci d' accord parce que la moo tax du parce que benn promoteur mënta jël ay millions dugal ko ci combat. nga ne ko da ngay def huis clos total. loolu day maanaam te yow de dommage ko. jàppale wuloo ko. te sponsor yi ñëwuñu sponsor amul sponsor. maanaam utaloo ko benn solution. da nga solution bu fekkente ne loolu am na mu a tëgg làmbam. huis clos mën na am mais si kaw état bi accompagner leen. il fallait que ñu bañ a jàppe promoteurs yi promoteurs yi ay sénégalais lañu. Mhm. di dimbali ay di liggéey di dimbali ay sénégalais jox mhm. leen ay liggéey. Mhm. parce que mbër yi promoteurs dañ leen jox ay liggéey. kon Papa Sow li ko dal ni metti na. metti na ci Siteu. waaye metti na ci mbër yëpp. mais mook Siteu nag dañ cee gën a metti. dañ cee gën la ñoom ñaar seen combat. mat na ñaareel dafa metti trop trop nga pousse tuuti gis Modou Lo ak Ama Baldé. xam nga loolu tam waxuñu boobu combat tamit te xamuñu fi mu nekk nii fan lañ jëm. ak combat yi kañ lay am. te mais dañuy toog ba Jeux olympiques mu ngi am. euro football nañ ko bu yàggul. ah. maanaam doy na waar daal. doy na waar kon ak la lamb ñoo nekk ci tiitaange ak njaxle. waaye ki nga xamante ni moo di Moussa Ndiaye président de l' président école de lutte Balla Gaye on doit indemniser les lutteurs impactés. waaw parce que nee nañu indemniser maanaam ñu ñu ñu maanaam. ñu jox leen ndàmpaay ñu ndàmpaay ñu ndàmp leen. waaw yoon la parce que tamit fi mu nekk nii moom defe naa ne état bi. tey milliards yi nga xam ne ni moo ne ci keesi réew mi mbër yi dañ caa am wàll promoteurs yi am ci wàll footballeur ba am ca maanaam sénégalais yëpp a ci am wàll mm-hmm. ku ci nekk nag war nañu xool yow la nga nekk bu fekkente da nga ca nekk ay jafe-jafe dab la ca mm-hmm. état ba fekk si la dimbali la mm-hmm. xool nu mu lay jàppale ba nga génn ci yooyu situation jóge naa itam indemniser leen wala ndàmp leen defe naa ne xel nangu na ko xel nangu metti xel nangu na ko hmm. parce que affaire yi metti na ki nga xamante ni moo di Moussa Gningue le sorcier de Fass le report de Balla Gaye Bombardier n'arrange aucun des deux lutteurs waaw arrangé wu ci kenn wax na dëgg arrangé wu ci kenn parce que li tax mooy ñoom ñaar même bu fekkente ne du bu ñu bëri dina ko daanu itam li gënoon ci ñoom mooy ñu bëri mm-hmm. contrat bi wàcc la nga dem mm-hmm. nekkaat ci leneen mm-hmm. mais mbër moom boo ko joxee xaalis Abdou di ko war ko bëri ah, dem ba xam nga bañ na combat bi 4 jours wala 5 jours ak ñu nag ba moom Moussa ñi ngi ba na a dina a préparer waat mystiquement parce que ku ci pare wutoon occasion la ci yow nga daan mën a préparer mystiquement waaw waaw ay waay jàmmi waay loolu la olof Njaay di lépp mm-hmm. waaw ku ci ñoom ñaar parce que ku ci ku ci nekk xam nga fi nga tolloon ci combat bi xam nga li li li pare kon ci yow te lamb des fois mbër dina ci ñëw du pare nag. Mhm. mystiquement des fois mu feeñ. Mhm. physiquement des fois mu feeñ mhm. mentalement des fois mu feeñ. ah bu rapport amee nag du ñàkk koo xam ne dina doon ci moom avantage xaw ma nag kan la ci ñoom ñaar parce que li ma leen dégg yoon ñuy wax ñoom ñaar ñëpp dañu pare woon. pour bëre. waaw ah, pare woon nañ pour bëre waaw loolu da lañ wax. sunu lamb daal di ñëw ak ñun ba tey kii nga xamante ni moo di le gouverneur le gouverneur de Dakar. Mhm. sur la reprise des combats reportés jusqu'à ce que les conditions soient réunies. waaw maanaam daal bu lépp dajewul. bu lépp dajee. bis bu lépp dajee daal ñu mhm. commencé waat. Mhm. xaw ma nag kañ lépp di daje. man de loolu laa xamul moo ma jaaxal Babacar man daal Abdou kañ la lépp di daje daal lii mooy suma problème man. Eh. c'est que bon Sénégal daal mu ngi nii daal. Babacar yéeme na. Babacar Babacar semaine bii li ci yàqu ci ay millions ci Sénégal kenn xamul nu mu toll. ay milliards nga ma mhm. yàqu dafa bëri. dafa bëri waaye nag les promoteurs ont accepté la proposition. ah waaw parce que ku amul yaay nampement nampement. waaw te mhm. itam ñoom ay patriotes ay sénégalais lañu. Mhm. te itam bon ak lu mën a xew wér-gu-yaram moo jiitu lépp ah ci àddina man loolu dama koy waxaat waaye dama ne wér-gi-yaram gi la santé avant tout la ñu wax. balaa dara wér. parce que boo wérul doo tal dara. doo tal kon yàlla nañu yàlla defal wér ñi feebar yàlla nañu wér waaye dama ne bu fekkente tamit mbir dafa am na ci ëpp dëkk. Mhm. autorité yi dañuy dañoo war a ut ay conditions yu war a tax nit ñi di def seen ay activités. Mhm. conditions yi bokk na ci noonu lañ ay mesures barrières gars yi di sol masque yi di raxasoo zel. Mhm. yooyu bokk na ci waaye tamit jataay yi bu fekkente ne dañuy mun taje dañuy wàllante. ñu xool nu ñuy toogee. loolu lépp ci waxtaan lay doon. ak itam li nga xam ne ñu xool condition yi mhm. waaye décision yi daal jël ko noonu noonu rak moom mën naa am lu bari lu muy yàq euh, te démb ci sa plateau spécial bi nga doon def euh, kii mhm. président de jeunes amateurs dégg naa ko wax wax bu am solo mhm. nee na pourquoi pas ñu daal di dem stade da bu nit toogee fii ñu tëb deux chaises keneen daal di toog pour ñu mën a organiser làmb yaakaar naa Babacar loolu yëpp ay xalaat la yoo xamante ji bu ñu ko jëloon làmb war naa mën a am te coow du am waaw ko li tax yooyu yëpp xalaat duñ ko jëriñoo mhm. parce que souvent li koy waral mooy ñu maanaam li may faral di wax rek mhm. jiite nit ki ba pare sori ko mhm. moo koy indi nit ki boo ko jiitee bu la soxlaa dalaa war a gis bu war a wax ak yow dafa wa war a may bunt bu mu waxe ak yow waxuñu nag ne kilifa daa war a latte déedéet waxuñu ku soxla président Macky Sall rek dem loolu mënta ne ku am problème ne déedéet parce que c'est le président de la république institution la yaa dégg am na ay gouverneur am na ay préfet ak ñooñu mhm. mais ñooñu ak yeneen ñi leen gën a suufe ñu fexe bu fekkente ne loolu góorandooy wax am na mhm. waxtaan mhm. mooy indi lii bu ñu waxtaanoon ak ñi ñu war a waxtaanal mën nañu ut solution loolu dëgg la ba rapport du am loolu dëgg la Babacar euh, ba tey ci combat bi nga xamante ni moo waroon a dox ci diggante Boy Niang ak ki nga xamante ni moo di Tapha Tine cas de force majeure dédommagement des lutteurs euh, l'éclairage d'un spécialiste de droit waaw xam naa nitu droit la koo xam ne xëy na di ci wax ci cas de force majeure ak mbër bu ñu war a dédommagé wala wala wala wala boog wàllum dédommagement en général loolu nag lu mu ci mën a doon comme mbir yi dafay am ay kayit yu koy tënk ñu naan yoon bi li la wax ci dédommagement li la wax ci cas de force majeure xëy na yooyu yëpp buñ ci yeggee bu fekkente ne war a am la ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbir yi tamit dinañ xool ñoom yan yoon la ñuy ubbi pour loolu mën a am voilà ki nga xamante ni moo di Max Mbergane manager de Siteu on attend qu'on nous dédommage. waaw léegi ñoom dédommagement la ñuy xaar. xaar waaw ndàmpaay. waaw yàlla na ndàmpaay li di. amiin <laughs> yàlla na ñëw ak jàmm. <laughs> ba tey bu ñu duggee ci sunu bu ñu duggee ci ci biir sunu làmb report de son combat contre Bombardier le staff de Balla Gaye gère la situation avec philosophie. waaw moo gën a parce que tamit bon mbir yi moom. Mhm. bu dikkee. Mhm. da ngay amum xel amum dal amum mat gérer ko. parce mhm. euh, que boo defee leneen lu def loolu tamit da ngay cay kii rek du ko jar. waaye du tere tamit nga wax sa xalaat wax la nga xam mhm. wax la la nga gis mhm. waaye du tax tamit nga wax lu ëpp wala nga wax wax bu ñaaw mhm. wax bu ñaaw daal la ñuy bañ ci ku mu mën a doon kon loolu ñu def tamit rafet na trop ki nga xamante ni moo di dafa Buuju Kebe Brosse de Balla Gaye 2 tôt ou ce combat aura lieu. incha allah rabbi am nañ ci yàqin ah. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla lu mu yàgg yàgg yàgg ñu bëree ko. Mhm. loolu moom am nañ ci yàqin. Mhm. loolu la ñaan. Père Alioune Diaw daal di dikk ak ñun proche de Balla Gaye ba léegi l' état pouvait sauver euh, l' affrontement. waaw maanaam mënoon na ko sauver mënoon na sot ay solution mooy li ñu doon wax sànq rek ay solution du ñàkk ah waroon nañu ay solution. ba gaa yi bëree. loolu man laa gëm mhm. man dama gëm ne waroon nañu am ay solution mhm. ba mois de août bi combat yi fi des fi fin août mhm. ñu bëree ko saison bi tëj man loolu laa gëm Bassirou Gueye euh, di père Bass père Bass par père Bass de mentor du lion de Guédiawaye l'impossible lu ci mën a xam daal père Bass waaw lu mënta nekk moom du mëneesu ko mëneesu waa taxawal dara dara bilaay lu leer la wax lu leer na Annulation de son combat contre Balla Gaye 2 l'entourage de Bombardier dans le désarroi se prononce. waaw waaw waaw waaw parce que bon ku ci nekk ci ñoom wax nga. Mhm. muy Mbaye Boy. Mhm. muy Los. Mhm. muy Pape waaw parce que bon mbir daa metti ah. waaw. ah ki nga xamante ni moo di euh, Mbaye Boye nee na la santé est plus important que tout. waaw waaye ñi dem wax kay dara dindiwu ko dara dindiwu ko wér na tey <laughs> nu taxaw sax duñu fi mën a taxaw maa ngi ko xam léegi sax dara di la métti ki nga xamante ni moo di Moussa Diop di <laughs> di los nous avions ak cœur de gagner mais rien n'est perdu waaw parce que ñoom gagné lañu bëggoon mhm. gagné la xalaatoon mhm. waaye nee na perte guñ dara waaw wax na dëgg parce que li tax perte guñu dara mooy combat bi moom ñu ngi ñaan yàlla mu am mhm. comme ñu ngi ñaan yàlla mu am nag su amee mhm. bu dee perte dara mhm. bu bés baa ci la lépp di leer ki nga xamante ni moo di Pape Sylla les conséquences financières sont énormes waaw wax na dëgg conséquences financières moom dina ci feeñ parce que li koy waral mooy xaalis yi ñu jotoon dépensé bëri na trop trop trop waaye nag xaalis lu mu bëri bëri bëri moom na wér-gu-yaram am ba waaw euh, ba tey ñu dem ak euh, les arènes euh, la vitrine de la lutte sénégalaise mu daal di ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkkam mhm. renvoi des galas de lutte jusqu'à nouvel ordre B52 Papa Sow rëg-rëg Siteu guy gi apprécie la situation waa parce que li ma bu fekkente ne ñoom ku ñoom ñeent ñoom ñëpp wala ñoom cinq yëpp ku ci ne am nga loo wax mhm. bu dee ki nga xam ne moom mooy papa la mhm. moom dafa jàpp ne Macky na xoolaat entourage loolu la wax loolu la wax waaw voilà loolu nag ah xam naa ne xalaat bu mu koy jox la. Mhm. parce que Papa Sow tamit kilifa la. ci réew mi la bokk. war mhm. a fi njaboot. Mhm. di nekk koo xam ne ni ci li mu nekk. da caa wane bopp bi ñëpp xam ko. kon defe naa itam di citoyen am na droit jox xalaatam président dala la république bi koy jiite mooy na xoolal André Assane. te itam loolu loolu lu jar a wax la parce tamit bon président. di nga yor réew mi bëgg ko liggéey mais mm-hmm. dafay am ñu mel ni man ñoo xam da ciy am ñoo xam ne. dañuy doy waar. dañuy doy waar loolu am mm-hmm. seen intérêt rek rek rek rek moo leen di. moo leen intéressé duñ la wax mukk lu nga xam ne nii lu lay jariñ la. wala lu jëriñ askan wi. déeréet mm-hmm. bu ndox manqué fa nga xam ne moo di ca ñooro wala ak yaay wala fële ca feneen fu mu mën a doon. déedéet dañ la naan lépp lépp foofa lépp baax na rek fekk na yow loola demewut noona boole ak population bi jaxase la. moo tax Papa Sow di ko wax mu xoolaat entourage am te xëy na ñàkkul ci entourage am tam ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla ah ay nit xam ne ñu ngi liggéey mhm. ndax man am na ñoo xam ne tey xam naa leen mhm. du ñu nekk samay nit a tax de mais dama leen a xam ñu nekk ay liggéeykat kenn ki ñoo bokk mooy sama meeru commune di maître Pape Sène mook Macky Sall ñoo bokk parti APR la bokk la bu nga xam ne bu nangoo liggéey la ki ci des ba tey moom mooy meeru fa nga xam ne nii moom moo di euh, dëkk ba la nekk Saalum docteur Macoumba Diouf ah moom tamit di koo xam ne nii ku koo xam ne la ku nangu liggéey la. Mhm. parce que topp nañ ko ci horticulture bi. Mhm. ànd ak moom. am na ci ñoo xam ne nii ci biir ñu ngay liggéeyal ay liggéeykat. Mhm. waaye nu mu amee ay liggéeykat tamit ci biir noonu ngay fekk ay ñoo xam ne nii. yàq rek moo leen seen bopp dong. seen bopp dong la leen voilà. ki nga xamante ni moo di Reug Reug wax euh, Reug Reug adversaire de Gouye Gui la santé des Sénégalais est plus importante. wax na dëgg. Mhm. waaw wér-gu-yaram gi moom. Mhm. maa la ko wax moo ëpp importance lépp. moo ki nga xamante moo di Bombardier ça aurait été une très belle affiche maanaam digganteem ak Balla Gaye. waaw mhm. affiche la woon de bu naroon neex. bu naroon neex. neex sax. Gouye Gui. xalam nga neex dem bay neex. nga daal di dagg <laughs> Gouye Gui adversaire de Reug Reug. waaw euh, que les ténors arrêtent de maanaam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw nañ arrêté di plaider seen bopp rek te xalaat mbëri ndaw yi waaw parce que na waxoon naa la ko léegi am wala mbaam mhm. gàtt naa ci jur gi la bokk dëgg la te mbër yu mag yooyu nga xam ne ñoom ñooy les ñoom ñooy ñoom ñooy les VIP dañu war a bàyyi xel yu ndaw yi mhm. parce que tamit ci lañ bokk mhm. yaa ngi dégg ci lañ bokk de seen ay rakk lañ te defe naa ne ñoom ñi nekk ay VIP fii nga xam ne fi lañ toll ah nañu bàyyi xel toll woon nañ ko fi nga xam ne fi la bëri ñoom ñooy yi toll mhm. àddina ne avancé ñoom liggéey nañ ba avancé ba nekk te tey fi ñu nekk loolu ñu mérito la mhm. waaye tamit li guy gi wax nañ ci bàyyi xel bu ñuy wax mhm. wala ñuy dox di défendre benn affaire nañuy sóoraal seen rakk yi di leen jiital di ànd ak ñoom ndax mooy ñu mooy yoon sax Babacar parce que defe naa ne euh, seen rakk yi ñàkk gis seen bopp ñoom ci ci association bi nga xam ne moom la Gris jiite. Mhm. ci ñoom li ñu wax. Mhm. moo tax ñu keroog benn association. tudde ko mhm. les jeunes lutteurs. les yaa ngi dégg. ñoom mobile nekk faak ay ñoom euh, bëri yu bëri ci ñoo xam ne nii. ñu nga ca biir que dañoo jàpp ne ñoom. ñee nekkaluñ leen fi. seen bopp lañ fi newal. ki nga xamante ni moo di Siteu adversaire u Papa Sow la responsabilité du CNG est engagée. waaw du ma ne la déet de loolu si tax waxit jar na bàyyi xel parce que CNG moom moo jiite làmb ji. bu ñu demee ba lu mel ni am du ñàkk mu am am na ca responsabilité ndax moom moo yore làmb xëy na moom waroon na mën a wax wax ju gën a leer ci wax ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy état bi wax leen la nga xam ne ni moom war a nekk wala bokk mu wax ak acteurs yi làmb yi kon moom itam lu du jim njaaka rek day doon njàkk moom ñoom ñu assensi mhm. waaw ki nga xamante ni moo di Bira Sène président du CNG de lutte je tire un bilan très satisfaisant de la saison waaw bilan bi de bu satisfaisant woon tamit xam naa ne am na lu ca am na lu ca rax waaw bu bëggee dégg dégg. dafa teel sax. Mm-hmm. bilan saison te tëjul di. waaw ñu ngi nekkoon ci pleine saison. Mm-hmm. combat yi des. combat yi nga xam ne moom la Sénégal yi gënoon bëgg gënoon xaar. xamante ni enjeu ba dafa bari woon. trop yooyu ko. bu ma la limbalee Balla Gaye Bombardier. Bombardier. ki nga xam moom mooy. Garga 2 mooy Garga Guy gi. Mm-hmm. ak li waa rent Dakar er tëggoon. Mm-hmm. waaw. beneen combat Baye Baye ma njoon combat bi mu waroon def. Baye ma njoon waaw. Mm-hmm. moom moom xoyantaan. fi ñu di ko xaar. nga bëgg a tiré bilan bu. tiré na ah, <laughs> <laughs> eh. ñaa ngi nekk ci ay xol yu tàng fi mu nekk nii waa làmb ji ngay parce que liggéeyuñ ba liggéey balaa ñuy naan bilan kay dañuy liggéey bu tëj dossier yi. daa jàpp ni liggéey bu rafet la ñu def rek. ah waaw mais bon mais même bu commencé néewuñu li mu li ñu doon def rafetul de waxuma loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tiire bilan moo. dafa dafa teel Babacar loolu dafa teel sax. dafa teel dafa teel. waaw bilan itam doy na waar daal. waaw euh, deux défaites devant Eumeu Sène et une devant B52 les erreurs de Balla Gaye vues par. Ambroise Sarr Ambroise Sarr c' est le coach équipe nationale moom moo yor équipe nationale de ligue bi mhm. li mu wax noonu defe mhm. waaw erreur yi muy def ba am ñaari defet ñetti defet yooyu mhm. waaw parce que contre Eumeu Sène ñaar yëpp boo xoolee Balla fugg bi moom danga ko ciy gis ki muy Abdel Diakhar doy foog na day ñëw rek lem ko te Eumeu Sène ah boo xoolee yëpp da ko piécé daam ko ci bëre yaa ngi dégg moo Bombardier tamit boo xoolee euh, loolu tamit dafa jël benn coup ñu daw daje ah Bombardier taf ko placage euh, lamb nag mhm. li may faral di wax rek ku juum doo daan mhm. waaw waaw euh, ba tey ñu des ak li nga xamante ni moo di les Jeux olympiques ki mhm. depuis le depuis euh, le vingt cinq juillet pour le Jeux Adama Diatta su le tatami le 6 août. le 6 août lay wàcc. tatami bi ñu koy ñaan la mu am ndam parce que moom couleur Sénégal lay défendre. ci Jeux olympiques yi nga xam ne. moom mooy am ca Tokyo. Adama Diatta ah, vraiment waaw le 6 août daal. boobu moom. yal na am médaille door bi loolu lañ koy ñaanal kon moo lay wan ne ñoom mhm. xëy na ñoo fi nekk di interdit ay lamb mhm. waaye ci jeux ya nga xam ne mbooloo ma muy dajale mhm. lamb dajale wu ko ñoom ñu nga ca waaw euh, li li nu mu tuddati euh, euro bi bërki démb la jeex Italie ko jël devant l'Angleterre ah Copa America ba jeex na Argentine ko jël devant li ki nga xam ne nii moom moo di Brésil yaa ngi dégg te mboo nit ñaa nga doon ñëw di setaan defe naa nag fi mu nekk nii il est l'heure que ñu xalaat. Mhm. ci sunu bopp. sunu bopp waaye tere tere tere tere rek. Mhm. defe naa fajul dara. fajul dara Babacar solution moo gën tere. solution moo gën tere. waaw kon tere nag du ñàkk du ñàkk. waaw mhm. waaye boo teree. da ngay ut yàlla mi ñu sàkk. bu ne bu leen def lii. utal nañ ñu aw yoon nañu defee leen kon jaara nag fee. waaw te Babacar sax dañuy jëm ci vacances. te xale yi wax dëgg yàlla dañuy bëgg di dem stade di wane seen bopp parce que loolu tamit Babacar dafa bokk ci li nga xamante ne. loisir Abdou loisir nit dof dafa bokk ci dundu doomu aadama nit kenn loisir dundu la mhm. gis nga dem ci plage mhm. ah dem si stade yi seetaan yi football yi mhm. wala dem seetaan yi ay concert ak yooyu loolu loisir la loolu nit da ko war a dund te sax sénégalais dañoo namm loolu dañ ko gëj a dund da ko far a dund loolu dafa fekk ne nag feebar bi moom duñu ne mukk maanaam amut am na waaye dañ ne leen nañu ay solution pour nit ñi mën a dund seen loisir ci dundin boo nga xam ne nii maanaam bu keroogee mm. problème du am. incha allah waaw. kon Babacar les arènes la ñuy tëjee di jox rendez-vous incha allah Sénégal yi demee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mhm. di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñi nga xamante ni ñoo seq làmb ji ñi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy le président de la république son excellence monsieur Macky Sall mhm. ñu ngi lay tàllal loxo di la ñaan ñu xool lu ñu mën a def ba organiser yi parce que promoteurs yi ñi ngi ñàkk xaalis promoteurs yi sonn nañ mbër yi sonn nañ di yàlla yàlla def jàmm ci réew mi di ñaanal kilifa diine yëpp yàlla yàlla def jàmm ci ñoom waaye Babacar may naqarlu benn affaire boo xamante ni dama ko gis démb ñu koy publier maanaam euh, Serigne Babacar Sy mi nga xamante ni photom ba dañ koo fekk fële ca fañ ko defar lañ ko defaroon sénégalais yi daal dem xotti ko xawma ku ko xotti nag Serigne Babacar Sy menn menn mi rek parce que loolu dafa ñaaw Babacar barke Cheikhul Khadim démb damaa tëdd affaire bi metti ma parce que ñun Sénégal ñun ñoo ko bokk quel que soit alpha ak ku ko mënti def la mu def ñaaw na lool waaw maanaam day boo bëggee dégg dégg Abdou li ma la wax rek réew mi fi mu nekk nii dama ko doon faral di wax ñàkki teggin gi fi ne mhm. ak ñàkk fi suturaaltuñ mag mhm. joxatuñu mag cër mhm. rawatina kilifa ak diine mhm. sëriñ Babacar Si doomi maam alaaji Malik ah? la mu bay ci waarul islaam la mu jox ay ay ci lijaasa wala xam-xam ah? nga fekkoo foto ay kiyam nga di ko saboté ka def nga yaakaar ne yow lu am njëriñ ngay def yàlla xam na ne yow xuma kan la de waaye na dem ba ci kanam mbir maa ngi nii dana ko gis lii ñaaw na trop. dana ko gis vraiment ñaaw na trop. dana ko gis waaw dana ko gis. parce que dafa am loo xam ne nii. Mhm. dafa am ñu bon ñoo xam ne dañu bon rek. dañu bon choisir bon. Mhm. choisir bon ah. Mhm. choisir bon. te waaye réew mi nag mu ne su koo jaxasee ñoom nañu bàyyi xel am na ñoo xam ne li ñu bëgg mooy jaxase réew mi. mënta ne te loolu dañuy sonal seen bopp. dañuy yàq seen temps. ndax mag ñi. li ñu def ci réew mi mu ngi ci réew mi te man ci ñi fi des dese ko mm-hmm. moo xam Serigne Mountakha la yàlla na fi yàgg te wér Serigne Babacar Sy Mansour ca Tiwaawoon wala xalifa ba nekk Medina Baye ka nekk Njaasaan ña ca jàngu ba ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla ñu yàgg fi te wér mm-hmm. ñu ngi waxtaan ñu ngi seq la ñu war a seq mm-hmm. parce que ñoom xam nañ ne ñoom ñooy kenooy réew mi ñoom ñoo téye réew mi loolu moom mu ku mu neex ak ku mu naqari looloo am Sénégal man nag li ma mënta gëm Abdou ku bëgg ñu wekk la mhm. da ngay wekk sa bopp ba pare wekk sa bopp nag mooy maanaam wekk xulle mële ma jàkkaar loolu wekk mhm. Abdou mhm. mais wegguma Abdou Salif ba pare bëgg Abdou Salif wegg ma pourquoi mënta nekk ah mënta nekk ku nekk jàppal ca la nga gëm ak ca ka nga yaakaar topp ca respecté sa morom ca la mu ne loolu moo di ak maandu te loolu moo di yëfi jullit loolu mooy yëfi nit ku baax sax lay wax waaye nag man li ma jàpp baax yow li nga jàpp baaxul loolu ay tooñ la te as gor du tooñ mhm. ki def lii tooñ na tooñ la def de te te itam deful yëfi gor mhm. te wallaay dina ko gis dina ko gis insha allah man ndax suñu Babacar si wàlliwu kamal la mhm. loolu moom na na na leer nañ wallaay la si wàlliwu kamal la te itam bon ñii du ñu kenn di fontoo de kilifay diine yi baax na réew mi di Sénégal nañ dem rek yàlla baax na yàlla yàlla def jàmm jàmmante nañu ah oui boobu saf na kii ah oui attention Jackson daanu